asalaamaaleykum ñun la waa Gambian Talents Promotion seen xarit la Maritou Sarr te ñu ngi nii doxantu si fii pipeline si kër am si kër Serigne Maska fu nga xam ne dañ am laka-laka Euh, Serigne Mass Ka doon na koo xam ne dafa gaañu ñaari fukki at si gannaaw te xam ne ne euh, njiit la si Gambia bi yaaga na di liggéey liggéey yu baax nekk na ku nga xam ne jàngale na Mohammedan School ba pare tamit mu ngi woon si Ministry of Education bi nekk na fa ku nga xam ne tamit liit na Islamic bi and Arabic department bi soo dañ yëg ne dafa am laka laka si kiram laka bu nga xam ne laka bu ñaaw la moo tax tey ñun waa Gambian Talents Promotion ñu taxaw pour xam lan moo euh, moo tax loolu xew léegi tam su jógee si loolu ñu ngi xam ne Serigne Maska am na ay doom yu tekki ku nga xam ne tam mu ngi tudda ah, Mahok Mahok moo nekk ku nga xam ne moom yu njëkka yi la ah. tamit moom moo moom Block TV dimbale na ay artistes yu bari ñu dem si Safia dem si Jalimaadi ak ñeneen ak ñeneen Mahok tamit doon na ko xam ne moom moom Block TV ak Block Entertainment te liggéeyam gis nañ ko si Gambia am na am doom bu nga xam ne tamit moo tudda ah, Modou kooku tamit euh, taxawaloon na parti GDC si élection bu passé local government élection bu passé waaye tamit euh, yàlla def na winut waaye taxawaloon na parti bi nga xam ne moo nekk GDC so tamit ah si suñ dégg-dégg ah, ak suñ yëg-yëg xam nañ ne tamit ah, kenn si doomam bi ku tudda Dadi Dadi Kora moom moo ah, laka kër bi si luñ dégg soo fi mu nekk tey den taxaw si kër bi pour laajte lan moo waral loolu ak ndax dëgg la ndax du dëgg soo de ñëw pour leeral mbir mi moo tax tey ñu ñëw taxawu fii pour laajte nit yu fi nekk ñu am clear information pour nit yi mun a xam lan moo fi xew tey soo fi mu nekk nii nañ duga si si biir kër bi waxaa nit yi ñu ngi am ku nekk si biti asalaamaaleykum a la waa Gambian Talents <laughs> man Kora ma may Kora Ka Kora ne fii seen dafa am yaaxu yaaxu maanaam da am laka oh, waaw dañ bëggoon nga leeralal ñu tuuti lan moo a ah, lafa-lafa bi ak kan moo taakal seen kër gi loolu leen bëggoon a xam waaw ragal-ragal bi moom suñu benn brother la suma benn brother la suma brother man suma bopp sax maa moom ñoo bokk day bàyyi goos ñeneen ñi suñu doom yi bàyyi leen ak yu noonu so waaye daf da laajoon waalam si kër bi ni jox ko waalam si kër bi waaw depuis 2005 waaye mu fa jël baax ni life bi xam nga def def ko muy métier daal tout taay lu nekka xam nga gens all all over léegoo léegi nag faa dem taxaar saa jékki-jékki ñëwaat su ñëwee fii nag joxuñ ko accès pour muy dëkk si biir néeg bi loolu moo bon loo xolam bi xam nga léegi ñu ñoo nekk di gaaruwaale kii nii benn bu mu paagoon fii nii si gannaaw mooy tugg bii nii nekkee ne le non mi bi accès si kanam naa leen ko dam ngeen wan leen ko tugg mënu su ko a defar ko def ko si saa bi nii loolu ko loolu lañ ko noonu moom muy ñëw foofu dafa fanaanantu parce nu mel ko dëkkal kenn du ko mën a dalal xam nga. ak yu noonu léegi nag mu jël mu jékki-jékki rek yaakaar nañu ko wax sax naa ñu dinaa taal seen kër gi dinaa li dañ leen ci police bi di ko report def lu nekk wax nañ ko ne pour mu génn si kër gi ba soona mais bu ko fay gis ko duñ ko accès sax mu di ko si biir waaye at the end ñu euh, on Friday early morning 4 am mu jël euh, kii ñu ne benn banta la jël am nu fa def ak yu noonu euh, sànni ko si parentère bi fii nii ñu leen toog. dañ toog tërë di nelaw rek araan foo araan foo rek xëti saxaar bi en eh, eh, fekk suma benn système tam ngi demoon si wanag bi di di wëñee ko si waa gisoon déggoon na ko mu ngay jaabante kooku bu ma duggee si wanag bi di wëñee ko si waa rek capa fii ngi tàkka waaw ñun si suñ dégga dégga si suñ research buñ def yëg ne ah, dadi dafa nekk koo xam ne he is not mentally balanced ndax xelam mutut te dégg nañ ne tamit nekkoon na tànka tànka te tamit dégg nañ ne tam demoon na Sénégal tamit yëpp si faju bi ñu ngi bugg a laajte tamit ndax loolu dégg la ndax dadi tamit fii la dëkk si kër bi. non fii moom dëkkatu fi woon moo fi indi woon boppam fii moom dëkkatu fi amul fi laajte woon siyaam ñu jox ko siyaam waalaam bu jëf tax soo dëkkatu fi moo fi forcé woon boppam rek daan ñëw fii waaye dëkk fi woon. waaw léegi yéen naka ngeen xamee ne moom moo laka kër bi. waaw da ngeen ko gis wala da ngeen dégg rek. non daf ñu daf ñu suma beneen système bi gis na ko moom gis na ko parce que kooku bu mu duggee di bu mu duggee di dem si wanag bi mu ko dëggam ngay jaabante nii xam nga bàyyi time mu muy gën a si wanag bi rek la cofa safara bi taxaw ba pare fekk dee bi foo ak fi fan yëpp soo wëree si koñ bi sax ñu bëri ñu ngi la ko wax ñu ne daf daf naa wax ne Irene dina taal kër gi wala wala wala wala dina fi réeb wala mu wala mu rey fi nit waaw yéen fu mu nekk boo déggee nit di wax loolu yéen lan ban action ngeen jël fii xam nga Gambia fii rek da ngaa si police am ñu am façon nit ñi two three months ago saacoon saacoon na fi benn sista dem ba kiram kooku noonu ñëf ko ba jël mobile am bi kooku yóbbu ko si police ba ko yóbbu mobile tuuti maanaam nekkoon na three months after ñu bàyyi ko waaw soo loo bëgg a wax da police yi maanaam police yi jëluñ benn action wala jëluñ benn jëluñ benn action benn time bu ne loolu da ngaa dem report foofu noonu si saa si duñ action after ay two hours three hours la gars loo leen foog dangeen ngeen foog ne dadi moom keena nit ki moom moo taakal kër bi wala dafa am nit yu nga xam ne ñoo ko jàppale si lu def o oh, da ngeen foog ne moom keena la soo moom su fi ñëwaan ban boor ngeen ko daan gis ak ñan fasangi nit la daan àndal. non moom gars yi moom ñëpp ko abandonné woon moom keena moo doon def lii palanteer bi waaye goo si nii moo yàqu daf fël ñu fële fële saan yi fële saan mooy palanteer bi nii xam fi yëpp sëti toogu la woon ba lu doo yaa ngi woon si liñ baa ngi nekk nii xam nga si liñ beeg bi ah, ah, ruuf yi xam nga bantiroon laag ak ak banta banta yi ni tuubaay tout yooyu noonu ñoo ñoo nekkoon si ruuf bi so obviously nga toon réew yi la so su taakee da ngaa jàpp su jàppee si bi rek dafaa go over di compound noonu noonu la yëpp te su safara bi tàkkee si kaw si wàcca armoire yi sa wardrobe yeeg li fi di koo taal waaw soo gis nañ ne fi seen kër bi ah, lakka bu ñaaw la lakka léegi lu ma bëggoon a xam kañ la laka bi xew. 4 a.m. on Friday 4 a.m. si suba. aali moon balaa fajar bi yaa. waaw si la xew. ah ok waa jërëjëf ah, si laajte buñ la laajte rafet na kontaan nañ si sa response léegi ah, luñ bugg a def rek moo nekk dugga si biir dem wax ak yeneen nit yi tamit xam lan la ah, gars xam si laka bi. Eh, jërëjëf ah waaw nga wan ñu tamit ñu gis. moo doon porté boobu amatul woon kenn ku ko ku ko dalal ci koñ bi gars yi fii kenn faale wu ko koñ bi fii parce que moom Baye Laye la dikkee soo ko demee dafa wax ne moom Baye Fall sol yu ñaanga xam nga su ñëwoon waañ bi gisee nii. waaye yéen daal soo leen estimé laka amount of xaalis ngeen foog ne la leen yaaxal. Oh, ci materials, moom you are talking about a million plus. xaalis moom with the strength of the of the compound and everything you're hanging building right now nu you could say three million plus. yaaxa yaaxa bu mag la daal. waaw la Talents promotion um, uh, Maska loolu lañ ñëw seet daal mu ngi mel ni ah, lakka bi nekkul lakka bu ndaw parce que the whole building dafa mel ni building bi yëpp a lakka dara génnut gisu ah, bagage yi génn yëpp seen yére yi seen toogu yi seen waañ bi daal dafa mel ni yaa leen paagoon fii nii xam nga pour war koo defar moom fii la ñëw def néegam dëkkuwaay yaa ngi gis ko hitaayam yi butéeli sàngara yi xar moom butéeli sàngara yi xam nga yëpp yaa wa comme noo mako ko si si ben bi yaangi wax ne da ngeen ko joxone chiayam si kër bi wa léegi so leen ko demee ba jox chiayam yéen lan mo waron ngeen warona tax ngeen bayiko pour mu ñew dëkka fi ah xam affaire doomi bay rek nit ak so blot ak yooyu nonu nit ak so blot ak en ah, kër bi bu ñu am ay tinérés yu fa nek ak yooyu nonu taw dafa agressif so ko mu na la mom dafa biral fi dafa ñu wax ne ko sa dama outil nek ñu suñu néeg 700 wala 800 hundred yu ba thousand la sax moom ak suma si tabi dinañ dinañ ko bokkal ñu la ko feel xamoon loolu yëpp wax nañ ko ko. waaw waaye kenn ko mën a ren rek because of ah, ah, nu mel ak behavior ak yëpp soo ko gisee rek appearance am fa nga bii beneen yi naan ak yeneen sax yi dañ fi bëri woon sax. ah fi mu nekkaan noonu seen broda bi fu mu nekkaan right now moom fa fa gis ngeen ko. yeah yeah bu bu incident bi xapu ne ah, bu eewoo noonu moom fekk moom nekkoon kuy fanaan fii nii. fii fii nii incident boobu noonu xàppul ah ba pare gis gisatuloo ko so yow xam nga loolu rek jàngale na lu bëree bëri bu kii gi di tax yow gisuloo ko xam lu bëree bëri waaw so after bu taaxa ba pare bu taaxa bi nekk sax dem na si benn bouton bi fële ne kër bi ne ne taal naa ko suñu ah, judicial bu dëkk fii nii si kanam noonu parents yu fa nekk gaat noonu dégg sama ko si fajar du fajar sax ay 4 am so am na bu pare moo taw di génn kër gi noonu bu kër gi di tàqaloon ah, suñu opposite nébo bi am na benn xale bu doon tudd loolu sebene mu ngi ko seen mu ngi daw waaw génn noonu jaaree na ci buntu garaaw mais du taw parce que ko dee karnaat bu ñëw ci xam ko so buntu garaaw bi leen dee bàyyi buntu garaaw boobu la boobu la ibi la bu ngee dem yoon la léegi mu si ko suñ suñ fi moom dafa njaay pour ñëw France fii nii by force Oh, so moom daf daan forcé boppam pour nekk fi waaye moom joxoon nañ ko si siyaayam lu mu ne moom génne woon nañ ko si wàllum yëfi kër bi léegi fu mu nekk nii mu ngi si loxo police wala nekku si loxo police ah mu si loxo police soo bu si si bi xappone noonu after bu bi amee ba dem ay fire service ba ñëw ba fekk after two hours to three hours si la jóg taxaw si joto bi fële di xool xoolu xale yi gis xale yi gis ko wax ñu ko rek nu ñu daw moom mu mu daw ñu dem jàppee ko si beneen kër fële le su nañ ko indi ñu yóbbu ko si police station bi. ok so léegi loo wax ni mooy ne mu ngi si loxo police yi. mu ngi si Kéréba police station right now. waaw ah, ok waaw léegi yéen ban façon ngi action ngeen bugg a jël because yaa ngi wax ne seen doom yi bàyyi la yéen ban façon ngi action ngeen bugg a jël. Ah, waaw kii moom action bi moom moom action bi moom dafa soo kii moom lu ñu bëggoon a def daf ñu bëggoon a mën a. waaw. moo moo soo police yi ñoom. suñ ko bàyyee bàyyi neen koo xam ni nii ku agressif koo xam ne nii dafa garaaw soo dis lui moom vesting moo ñu tëj ko rek balaa fi jël ba ñu ñaata ñun ay people indi compound ñëpp ewoon door amum dara luñ génne lu lu benn box box sax man maa génne benn box sax yére yu ma sonn yëpp lañ ma ko may waaw soo yaa ngi niin ne yéen seen bagage yi daal dara génnut dara dara dara su saal bi flat TV mu ngi fa woon sixty one inches man su ma nekk amoon TV tape wardrobe bed nothing dara kër néeg yeneen néeg so mbaa kenn gaañuwut kenn kenn sustained injury war a gaañu daal. non non non because dañ ko teel di rek bu safara bi taakeelu si saal bi rek balaa moo ñëw bi dem ci léegi noonu su leen taw ñu ñëpp génn di woote euh, ndimbal balaa nit ñi di ñëw ñu ko jël ndox di ko fay na waaye fekk jàppal na si semaine yi. oh ok so mu ngi mel ni yéen daal sustainu leen benn injury kenn gaañuwut. waaye waaye seen yaaxu yaaxu yi daal bari seen bagage daal yëpp a wala kii yére yeeg amatul amul woo dara dara dara waaw jërëjëf ñun la waa Gambian Talents Promotion comme ma waxee si njëlbeen bi ñu ngi ah, si kër Serigne Maska ku nga xam ne oustaz Maska ku nga xam ne moom bokk na si ñu njëkkee ah, ooyee oustaz te in the Gambia te moom dafa nekkoon ku nga xam ne ah, nekkoon naa di jàngale school bu nga xam ne ñu bari jàngaleñ fa Mohamedan school waaw school bu nga xam ne ñu bari jaar nañ fa school bi ñu la nekkoon te dafa nekk koo xam ne tamit mu ngi woon si ah, si ministry éducation ministry bi bokkoon na si islamique secteur bi ak arabic secteur bi soo ñu ngi si biir néeg bi nii right now ñu ngi gis ne daal ñu seen bagage yi dafa over yaaxu amul uh, dara génnu fii seen sponge yi seen néeg bi yëpp yëpp a lakka daal dafa mel ni dara dara dara génnu fii dégg uh, comme ni nu ñu ko waxee seen xaalis yi seen yére yi seen télé yi seen toogu yi daal wanag bi daal building bi everything yëpp a born down kii daal ñu nekk seen broda dadi bi nga xam ne according to ñun information buñ am dafa nekk koo xam ne he is not very balanced like moom xelam daal eh, mutut bu baax dafa mentally ill waaye comme niñ ko déggee moom si on brodaam lu ñu wax daf daan jëfandikoo ay sangara ay drogue am daf daan jëfandikoo ah, taay ak yooyu loolu tamit mun nañoo wax bokk na si lu nga xam ne tamit moo tax mu agressif moo tax mu def nii soo ñun tamit si yëg-yëg buñ am jox nañ ko si ay ah, kër bi joxoon nañ ko si ay ah, moom requestoon soo fi nekka nekk lii lañ nekk di gis si kër bi dinaa ko jox a ah, naataango bi Xadijatu tamit moom tamit mu wax dara mu continuer interview bi. asalaamaaleykum

yow xaaral ko ñëw soxal a xeex yow. baale ko baale ko baale ko nañ ak Kora moom jox nañu ah, information buñ bugg a te Safi moom tamit daal dégg ngeen ko moom mu ne. ah amul dara lu moo te waaw mu ne ndogali yàlla la so ah waaye sa fi nga ne ndogali la waaye laka laka bi dégg nañ nit moo ko def ah, war ngaa mun a wax ak ñun tamit ñu xam loo am ah, bye bye waaw ah, ko déggee rek Gambia daal mooy loolu nit yi duñ dee bugg a jóg wax tamit wax lan moo xew soo ñun dafa mel ni ñu ngi ut pour ah, nit yi ñoo waxal pour gën a am information about lan moo xew fii tey dina ko jox suma naataango bi Xadijatu ah, moom daal mu mu wax dara. salaamaaleykum Gambia man na seen xarit Xadijatu Great Johnson from jugee ko Gambian Talents Promotion ñu ñu leen di su nekkee nag. comme ni ngeen ko gisee li ñaaw na te gaa ñàkk ne lu bëri si kër bi si nekkee dañ leen bëgg a jàppale daal ngeen jël nomba yu ma leen di jox ngeen kool gaay di ngeen jot gaay ngeen jàppale leen si noo leen di jàppale kenn ki mu ngi tudd euh, Moussa Tall mu nombam bi mooy 99 37 991 Moussa Tall keneen ki mu ngi tudda Pachan Pachan moom nga amee ko nga koy jokkoo si 999 07 94 ak Safi Safi 3943 944 ak si soo nekkee feneen foo xamante ne bëgg nga yónnee xaalis wala jàppale leen mun ngaa eh, yónnee ko si suñu account bi Gambian Talents Promotion ñu leen ibil GoFundMe ngoo xamante ne di nga leen mun a seen xaalis bi nga jàppale leen parce que gars ñàkk ne lu bari si kër bi jërëjëf man la seen xarit waate Xadijatu Grey Johnson from Gambian Talents Promotion jërëjëf. waaw comme nu ko Xadijatu waxee rek si gàttal bi ñoom daal am nañ ay yaaxu yaaxu yu bari léegi daal soo xamee ne bugga nga leen a because gis nañ lu fi xew dara génnut seen bagage yëpp lakka ne gis nañ lu fi xew soo leen buggee dimbale gars yi comme nu mu ko waxee mun ngeen a jokkoo ak Moussa Tall kooku numéro mooy 99 37 991 mun ngeen ak Pancang tamit kooku number mooy 999 0794 mun ngeen a call tamit Safi soo leen amee any ndimbal boo leen bugg a jox gars yi either in cash or kind parce que ñoom am nañ yaaxu lee bu métti mun ngeen ko jokkoo ak moom si 394 3944 te tamit ñun waa Gambian Talents Promotion ñu ngi leen créétal GoFundMe account soo leen buggee donate dara yéen mi nekk si diaspora bi Amérique ak yeneen place yi ngeen bugg a donate gars yi mun ngeen um, jokkoo ak Pa Ousmane Diouf mu nekk a Gambian Talents Promotion soo leen amee ndimbal boo leen bugg defaral gars yi soo ñun la waa Gambian Talents Promotion te ñu taxawul leen en pipeline fii si Gambia bi jëre ngeen jëf.